naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk salaamaaleykum amis ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV Babacar maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Abdou Salim. Babacar euh, naka nga fanaanoo ba yaa ngi si jàmm. waaw sant naa yàlla bu baax a baax a baax maa am jàmm bu baax a baax. macha allah Babacar nous sommes lundi 12 juillet 2021 ñu dem seetaani revue daal di dikkaat. waaw incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 12 juillet 2021 dañu ñëw ak ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fesal mook lay arènes ñoo bokk fu ñu xëy génn tey maanaam diggante bombar Bombardier ak Balla Gaye 2 caat ak ja Boy Niang numéro 2 bu Géejawaay ak doomu Jalaw mel ni kon daal weekend bi moom riisoon na ci wàllum làmb ak itam ay face à face bu dee yëglikaay bi suñu làmb la moom lëm nu xëy xamal ne na Balla Gaye B52 Pakala Forza pour le 31 juillet moom mu mel ni ki nag ñaari règlement de compte yoo xam ne daal yu nar a yoo xam ne daal maanaam roq bu sedd mala boog ci luy baax lay doon du am roq bu sedd yëglikaay bi xëy ñu won seen ay foto Balla nag moom la mu dig Bombardier metti na lool nee na ko li am ba des daal jàppal ne day boo bëggee dégg dëgg moom boo xeexeek man dinaa la dóor a dóor dóor a dóor ba bu keroog képp ku ànd ak yow dana amu naqar ndax nag maanaam samay aptitude ak sama dooleeg sama lépp dem naa ca INSEPS ga ca France ca Paris renforcé wu yokk sama bopp ba mu wóor ma ne maag yow buñ jàkkaarloo moom doo doy boo ma ne ko da ngay nax sa bopp de li ma la mën a xamal day say bom booy ba nga tel koo defar ndax li am ba des yow daal li am ba des Bombardier nee na ko soo dikkulee dama lay jëlsi te su ma la jëlsee moom jàppal ni dóor la nga daanu sax wala dóor mu daanu mën naa am boo Bombardier lii la ko tontu mel ne goon foofu daal wax na xaat tàng na jër feneen foo xam ne nii moom bërki démb gaa yaa ngi fa doon xaar mu wax xaat tàng jër waaye combat ba daal yëglikaay bi ne na maanaam daal li ko sunu làmb tuddee daal farce maanaam diggante Boy ñaa numéro 2 ak ka nga xam ne moo de doomu jalaw kenn mujjul daan sa morom match nii la mujj làmb ja fàllu Ndiaye moo ko tëggoon keneen koo xam ne nii moom moo tëggoon démb muy prince Sissoko sunu làmb ñëw na ci yëglikaay bu ci jël ba caat na mu daane mu ba toog ca kawam mel ni ki nag caat moom démb daal ba mu amee ndam ka mu delloo njukkal du kenn ku dul ko ko formé di booy bambara la fo la la rendre hommage daal di koy ñaanal loo xam ne ni daal ñaan la yoo xam ne mu ngay ñaan yal na ko yàlla jotale ca ñaan yooya moom caat daal démb wane na boppam bu baax a baax jamono joojee tamit fa nga xam ne moo doon ca stadium Iba Mar Diop samedi ba moom yëglikaay bi di sunu làmb xëy na nu xamal ca biir yëglikaay ba ne na Jaw moo fa tëggoon Zal Bawal ak caatu yarax waaye caatu yarax daal digganteem ak Zal Bawal moom képp ku yéex sax gisoo jël ba maanaam effacé daal la ko caatu yaraax def daan ko jël bu gaaw a gaaw demu yoonam bët set ca dimanche ja ba tey Iba Mar Diop Boubacar Ñaa ñëw fa borom ama events tëggoon fa Boy Diop ak xeeru ngor numéro de booba combat moom seetaan nañ ca tuuti ndax 2 minutes 27 secondes la ñu yëglikaay bi ne moom la diire kii di xeeru ngor wala boog booy Diop bu sàkku xam-xam daan ka nga xam ne moo di xeeru ngor jël bu leer nañ buñ fa jógee dem les arènes dikkaat ci Balla gay numéro 2 ak itam ka nga xam ne moo koy tàggat di Vincent wala boog Veslas Dabaya kot suba daal la mu xëy xamle maanaam moom moo ko ron ca lin sab sa ga ca France nee na daal Balla fi mu nekk ni moom pare na te itam nee na li am ba des daal résultat ba ñu nga xam ne war nañ koo am la 31 juillet Vincent nee na daal wala boog Veslas nee na loola maam planifié nañ ko de à Z xam nañ daal mbir fi mu nekk ni na muy demee commencé ko ci A ba ci Z kon daal moom seen ndam moom laam-laamee defuñu ko ci ca Thierno géey ma nga xam ne tamit am wàllu mystique ma moo ko rel bal la Thierno la mu xëy xam ne daal nee na li am ba des daal Bombardier moom bu yeboo dina xam ne dañ dina gis lu méttee méttee méttee métt yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni noonu caat moom les arènes mu ngi nuy xam ne daal caat phénoménal démb daal la mu wone fa nga xam ne moo di ci arène nationale moom lu doy a waar la maanaam wàllum technique puissance stratégie lépp la caat indil mu ja daal di ko koy tegal moo tax combat ba wax xat fa ñu mujj nag mooy caat daan na mu ja jël boo xam ne bu rëy rëy la yëglikaay bi di les arènes moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes booy jóob tamit def na fa loo xam ne ni daal ka nga xam ne moo di xeer ngor numéro de maanaam jooyloo daal la ko def boo jóob daal da koo mujje daan demu yoonam daal di ñibbi fa nga xam ne moo di ca parcelle ak la ko wër ñeneen ñoo xam ne ni moom wala keneen koo xam ne nii ba tey la mu def itam yëglikaay bi di les arènes ñëwaat na ci muy caatu yaraax yëglikaay bi nee na nag combat bu ngeen bëggee dégg-dëgg digganteem ak Sall Babal ñetti seconde la ñu bëre caatu yaraax dal di ko daan demu yoonam jaraw ak Boy Niang 2 moom maanaam ñoom ñaar mat si niil la ñu mujje leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mu di aw tiis woo xam ne ci làmb la daal assurance Malick Diop ma ngeen daal dégg daal moo fi génne àddina démb yëglikaay bi xëy na wax nu ko moom les arènes sunu làmb tamit dikkal nañu ci lu mel ni ki noonu waaye làmb simple ja tamit daa mel ni desu ca ginnaaw ndax soo bëggee dégg dëgg daal fa nga xam ne moo doon ca Adrien Senghor daal yëglikaay bi na weekend daal kii di Doudou Sané bu Diofior ak Mamadou Ndiaye bu Joal daal ñoo fa teg ay tànk fa tegoon ñoom ñaar daa mel ni ñoo ko jël ci samedi ak ji dimanche ji yëglekaay yi ñoo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer dem fa nga xam ne moo di ca Equivox TV Leewtoo Lutte TV fu nu ca mën a dem daal lan fay fekk mooy la xewoon la xewoon ci samedi ji ak dimanche ji moo xam ci wàllum làmb ja ca Iba Mar ba ci arène nationale combat ya nga xam ne amoon na muy combat yoo xam ne neexoon na lool jël yi rëy lool waaye yëglikaay ba ñëwal nañ ci combat papa boo jinne ak ka nga xam ne moo di bébé bis ak combat boo xam ne naqar wa nga xam ne daal ba nga xamee ne daan nañ papa boo jinne naqar wa nga xam ne moom la soxnaam am muy ndey géey ka nga xam ne nii daal wala boog waa Equivox ak yeneen i yëglikaay ñëwal nañ ñu ci mbir mooma mel ni kon daal soo bëggee dégg-dëgg moom arène national tamit xumboon na samedi dimanche itam xumboon na Iba tamit yëngutu woon na kon mu mel ni làmb ji fi mu nekk nii moom lañ naan sàjj da koo def ba yegg ci lool li ñuy ñaan yàlla daal saison bi nii mu démarré yal na ni jeexe ak jàmm mbër yi bëre jàmm di am te feebar bi di korona ñuy wax ne mu ngi yokku yal na wàññeekuwaay wala sax mu jeex barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Babacar ginnaaw ba ñu la nuyoo sunu làmb daal di xëy ak ñun ci xëtamu njëkk ki nga xamante ni moo di Balla gay ak euh, ki nga xamante ni moo di Bombardier vers ver deux règlements de compte explosifs maanaam ci diggante ki nga xamante ni moo di Balla ak euh, Bombardier. waaw Pakala Forza. Mhm. ak Pakala ak euh, ki nga xamante ni moo di Forza le 31 juillet. loolu tax yëglikaay bi ne ñaari règlement de compte wax na dëgg parce que combat yi li ci doy mooy ay revanche la. Mhm. ndax boo bëggee dégg ñaari doomi mbuur yi ca combat yu ñoo amoon ndam. Mhm. Bombardier moo danoon Balla Pakala moo danoon Forza. Mhm. tey ñoom ñu bokkaat même jour muy ay revanche. Mhm. moo tax yëglikaay bi jàpp ne ñaari réglement de contrôle effectivement. Mhm. defe naa ne loolu moom lu jar a bàyyi xel la te itam euh, bés la boo xam ne bés bu lamb dootul fàtte la daal. waaye ki nga xamante ni moo di Balla Gaye ñu nekk ak moom ba léegi suñu làmb Bal euh, Balla Gaye rassure ses supporters si Bombardier se bagarre je le tabasse j'étais à l'INSEP pour renforcer mes capacités mes aptitudes autant pour moi Babacar. waaw mu nga woon ca INSEP pour renforcer aptitude dëm mhm. xam ak lépp. Mhm. waaw loolu nag mooy li ma la fi waxoon bëri ki démb rek defe naa ne mbër ku ci nekk rek sooy màgg si làmb. di màgg financièrement di màgg ci côté mbooloo di màgg ci lépp lu mën a doon da ngay màgg ci encadrement di màgg tamit ci wàllu xam-xam parce li nga li am sa dëkk baax na macha allah waaye tamit boo tolloo ci yenn niveau yi bëgg a nekk sportif de haut niveau il fallait que des fois ngay dem à l'étranger di jël foofu xam-xam. Mhm. di booleeg li nekk sa dëkk boo ko boolee mu mën a nekk benn njaxas boo xam ne mën na indi résultat. Mhm. te moom gis nañ ne bi mu demee contre Modou bi mu dikkee wax dëgg yàlla bi mu ñëwee. indaale gis nañ ne. mu mhm. jógee INSEPS la mu fa doon liggéey. wane na ko kon xëy na tamit loolu tax mu delluwaatoon fa kon su waxee ne daal daf demoon ngir yokkaat boppam ci lépp lu mu mën a doon xel war na mën a nangu waaye ki nga xamante ni moo di Bombardier bàyyiwu ko benn yoon ma ngi koy topp naan ma ngi koy topp nee na ko bu fekkee Balla ñëwul moom dina la ko dina ko jëli te kaaw sax mën na ko cee fekk waaw Bombardier ku ne xam na ne moom du du du du du xaar te mhm. Balla du xaar waaw kon xam na ne ñoom ñaar ma foog ne lii ñuy waxante yëpp dañuy daja laa gën a xalaat mhm. ñoom ñaar seen combat daje xalaat naa ko ci Ah, xam naa ne bu daje boobu amee loolu Bombardier wax itam lu jar a bàyyi xel duur mu daanu mën na ci am de bu ñëw runkum daje ndax ñoom ñaar seen loxo dafa diis mhm. xeexu kaw moom du ko ci bëgg xeexu kaw mhm. du ma ko ci bëgg de ñu liwaatoo dox daje xeex ay loxo weccoon tey loxo wallaay xalaat naa su keroogee kenn ci ñoom mën nga wàcc sa morom ak ku te bëri fa am bu ñu sañoon nag bu ñu xeexee ba pare dañ naan renkum bëri ndax ñu gis bëri ba tamit daf ñuy neex waaw loolu baax na ci Babacar mm-hmm. waaye démb ci arène nationale ki nga xamante ni moo di Thiat moom moo daan ki nga xamante ni moo di Dia euh, Thiat bi mu daanee xamante ni moo di Dia nag rendre na hommage ki nga xamante ni moo di euh, Boy Bambara waaw loolu dafa naa dafa delloo mbaatu si ci ndaali parce que Abdou euh, nit ki mm-hmm. li am solo mooy couleur dafa baax mm-hmm. te doomu aadama da ngay am couleur ndax école di Boy Bambara booy bambara moo ko sanc àndoon kook ay nit yaa ngi dégg bi mu koy sanc ñoom caat ay xale lañu ñoom dafa booy bambara ñoo fa nekkoon nekk ay mag ñoo magoon ñoom caat foofu mhm. ay ñoom saalum saalum ak yeneen i mbër yu nekkoon foofu ci Grand Dakar ñaar tali bi mhm. booy bambara di liggéey ak ñoom ba vraiment ñu nekk ci raay di tegu ci aw yoon di am ay ndam mhm. yàlla dogal au fur et à mesure ñuy dem yàlla dem ba mu muttale mënatu ko mu bàyyee ko xale ñu gérer écrit bi yàlla dogal far yàlla indi feebar ba kenam dafa naa bi Boy Bambara génnee àddina te bi combat bi taxaw Boy Bambara boobu mu ngi fi da doogul mhm. kon caat defe naa ne démb bëriwaale na loolu kon su daanee delloo ko njukkal delloo ko rendre ko hommage defe naa ne loolu dina neex ci ay mbokk Boy Bambara la mu war na kaa def kon àddina loolu moo lay wan ne rek nit ki même bu ngeen bu bu ngeen di dund ngeen ne da ngeen a am colère bu leen yee liyee lu leen boole. Mhm. defe naa ne bu kenn ki dëddoo bàyyi fi kenn ki. Mhm. bu fekkee lan nga wax dëgg la ci yow kóllëre gi su borom faatu la war a gën a mën a feeñ sax loolu dëgg la Babacar gor moo koy xam te gor a koy def kon caat li mu def tamit vraiment yëfu gor la ndax nag booy bambara moo ko tàggat sunu lambu daal di dikk ak ñun ci combat bi nga xamante ni moo amoon samedi fële nga xamante ni moo di arène nationale la farce du week-end ko tuddee maanaam doomu jalaaw ak ki nga xamante ni moo di Boy Niang 2 waaw doomu jalaaw bu tëngeej ak Boy Niang 2 bu Guédiawaye wala mhm. ñaar nag seen combat xam naa ne moom loo ci mën a dégg lañ ca doon xaar daal mujj ca am parce que mhm. ñi amateur yi ñu doon xaal jël la am ci mhm. mais jël la mujj ca am mais nag terewul am na yeneen combat yoo xam ne comme Ndiaye production ñu mu ñoo ko tëggoon tëggoon nañ ñetti grand combat ndax ku ne xam ne ne Agogo ak Baye Mandiaye grand combat la Euh, ki nga xam ne ni moom mooy Papa Boy Djiné ak euh, bis bébé Bismi mhm. grand combat la kon defe naa loolu su amee euh, bu bee nii lee mhm. yee moom yegg na ak combat yu neex public bu bëri ñëwoon ci samedi ji kon di wax ne que daal làmb noonu la match nul tamit dafa bokk ci sport bi ah mhm. il fallait di ko nangu des fois day posé wu day day am ki nga xamante ni moo di Boy Diop évacué Xeeru Ngor 2 ci 2 minutes 25 27 secondes Babacar waaw la ko évacué waaw mu mel ni booy joob tamit kon dem daan na Xeeru Ngor ca dimanche ji jamono jooju fale ca Iba Mar Diop mhm. Boubacar Niang suñu frère moo ko tëggoon vraiment mu nekkoon fa tamit euh, lamb ju neex ndax seetaan nañ image yi mhm. ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay espoir u lamb di ay xale yoo xam ne ah euh, bon il fallait que bu ñuy liggéey rek am ku dem bàyyi fi morom mi quoi mhm. loolu moom moo ci moo ciy am wala boog kenn ki daanu kenn ki liggéeyuwaat waaw bii tamit defe naa ci samedi ji la amoon euh, journée Baba Diaw Iba Mar ki nga xamante ni moo di caatu yaraax Efas Zal Bawal Bawal Zal Bawol waaw. <laughs> <laughs> Zal Bawol Zal Bawol Bawol. voilà waaw caatu yaraax moom. <laughs> li ma wax mooy comme am ak Zal Bawol defe naa ne ñu bari bëri seetaanuñ ko. ndax la wala boobu ku yéex gisoo ko ndax li tax mooy deux secondes xam nga ku ci daan mbër. kon ku fa toogoon defe naa ne sax pour nga ne la jël bi nii la demee day jaf loolu nag li ko waral lenn la rek. maanaam mbër boo concentré aussi li ngay def. jox bés bi cër. Mhm. dama koy faral di wax mbëri nañ bu ñu nekkatee ci biir làmb nañu xam ne ci làmb nañ ne di concentré wu ci làmb ji concentré wu ci sa adversaire mhm. ba caatu yarax bi combat bu mujjee. Mhm. moom serpent maa ko reporté keroog ba ñu def face a face ba maa ko présenté. mais gis nga seen combat même noonu la demee woon ku yéex rek gisoo ko arène nationale. arbitre bi daal wàcce loxoom benn way la ko def sànni ko fa la jéggi ko jàll mu ñëw dëggalaat loolu. moom mbër la muy song. te song mooy jeexal làmb mooy jeexal làmb mbër mu la ëpp mbër mu ëpp lu muy songu jàppal li ma lay wax bu fukki combat amee mën na am ñaar la si ñàkk mais di di mën na ko daal dëgg la parce que songkat moo mel noonu mhm. parce que mbër bu mën a songu xam heure bi muy songu ak saa bu jógee bu yegsee ci say tànk abdu pour nga tàqale ko ak moom daa jafe day jafe te caatu yaarax macha allah xale la te itam macha allah am na doole mu ngi liggéey te gën na boppam te itam waa yaarax ñu ngi ci ginnaawam te vraiment ki mu daan tamit ku ko daan daan nga mbër ndax Zal Baol xale la bu mën a bëre mhm. boo xam ne ci dynamique de victoire bu neex la nekkoon daan Abou Niass daan brise de mer numéro 2 mhm. ñu boole ko caatu yarax caatu yarax effacé ko ci deux secondes ah ça veut dire que moo lay wan ne caatu tam nañ ko bàyyi xel Babacar fële euh, ci Adrien Senghor de ab euh, bi ñu génn amoon na amoon na combat ki nga xamante ni moo di Duus du saanee ak Mamadi Ndiaye vainqueur waaw Abdou mhm. Mamadi Ndiaye ak Doudou Sané. Mhm. ñoom ñoo gagné lit simple bi amoon ci weekend bi ci Adrien Senghor. Adrien Senghor entre samedi ak dimanche. samedi ak dimanche Mamady Ndiaye doomu Robert Diouf. Robert Diouf ñu papa Robert depuis Joal. Mhm. Doudou di doomu Diofior. Mhm. ñuy ay mbiru simple. Ah, ñëw ak ñun ci ki nga xamante ni moo di euh, Balla Gaye 20. Euh, Veslas Veslas Dabaya. waaw coach de Balla Gaye à l'INSEP. waaw ah, nee na physiquement dans la tête Balla est prêt. waaw parce que moom mi ko yor di ko tàggat. lu mu ci wax day gën a leer. waaw ni ñun ñi ko sori. comme moom moo nekk athlète bi lu war a mag deux mois wala deux mois yu moyen. Mhm. moom Veslas Dibaya boobu. lu mu wax ci Balla rek tey xel dina ko war a nangu. Mhm. parce que tamit yow mi team athlète bi di ko tàggat. Mhm. di dugal ci moom xam-xam defe naa ne boo nee pare na. Ah? pare na ci toutes les plans ci bopp bi. Mhm. mental bi ak lépp. Mhm. defe naa ah, bi ñu jëm mental da ciy joué. diggante Bombardier ak Balla ah, ba tey ñu ngi daankaafu ki nga xamante ni Bombardier le résultat est planifié de A Z. waaw loolu Veslas moo ko wax. Mhm. nee na seen résultat moom maanaam planifié ko defar nañ ko daal defar nañ ko A à Z loolu nag comme li ñuy wax rek ci combat lañ jëm actuellement bataille de communication day taxaw day taxaw mais li ñuy def mooy yónni yàgg yónni yàgg ba xam ndax loolu ñu planifié buñ ca yeggee dañ koy tari <laughs> mhm. loolu la 31 lañ koy xam yàlla dañ ko fekkete tal ki nga xamante ni moo di Thierno Gueye si Bombardier se bat ñu daal di def trois points de suspension maanaam. loolu mooy bu Bombardier xeexee dinañ ko wàcce. ah waaw loolu day Thierno ko wax. waaw mhm. xam naa daal combat bi moom wax ji bëri na. Mhm. Bombardier Balla Gaye 2 waaye a metti lay doon. Mhm. Thierno nag ne xam na ne ba Balla ba tey ci wàllu mystique foo gis Balla. Thierno bu Balla bëri doo gis ci làmb. Balla rek a koy tax a ñëw làmb ah kon moom itam xëy na wax. dañuy bàyyi noonu seetaan ba xam fu war a dem ki bëtu les arènes daal di ñëw ci ki nga xamante ni moo am ndam démb mu di caat technique puissant stratégie phénoménal Tchad devant Modou Dia. waaw parce que yooyu yëpp feeñ na ci bëri bi. Mhm. parce que dama na ne démb wax naa la ko ci plateau bi bi ñuy jeexal. Mhm. Tchad Modou sol na ko lalli ko. Mhm. Hmm? bi mu ko dëbbee sol ba pare lalle foofu caat bu am goon doole Abdou. Modou Dia na ko bu yàgg. Modou Dia est-ce que tamit la maye ca làmb ja bëriwul Babacar. non maye du maye de man tuddewuma ko maye de. parce que Modou Dia dafa def action boo xam ne la mu def dafa bëri pire. parce que dañu ñoom ñaar. xeex ci combat bi. dëgg la dañu mbapat ci biir mbapat boobu nag ci la Modou bu génnee bëreem. parce que dafa man a bëree moom il est technique. yaa ngi dégg te athlète la mais bi mu dëbbee col lalli bëgg a tuur waa ji. waa ji dem bay mel ni lu yegg teer tegal seenum jugaat. ndax doole bu mu am mujj nag xam ne kii am na doole caati tam xam ne moom li ko mujj def bu ko nangu. ñu continuer bëree bi nag caati tam moom itam tëbb sol génn ci flanc bi bi muy génn nag boobu mujj mënatu ko téye génn bopp bi génn ci poxotaan bi. léegi nag bu bopp bi xasee génn ci poqutaan bi cat day am beaucoup d'avantage parce que li muy téye day bëri bopp bi génn yow nag moo jë nekkatuloon ci position bu baax du maye de fi ñu ko yegg dañ ko bënn loolu mooy senn mbir bu la senn jaar sa poqutaan génne boppam li muy téye ci yow day bëri dalay talo ba pare assise am mooy gën a baax yow sa taxawaay dootul dëgër dëgg la baabu li mënoon def mooy dugal tànkam bi muy jéem a dugal tànkam cat dafa dindi loolu ba pare delloo ko ànd ak moom day tëdd par force day daanu ba jaaxaan. bëre te doole da caa baax. ba tey caa toog ci kaw. <laughs> ba tey ñu jeexale ak les arènes euh, Adrien Senghor samedi et dimanche Doudou Sané et Mamadi Ndiaye sort du lot. waaw ñoom ñaar génn. ñoo jël lañ fa tegoon ñu di leen di félicité. Mhm. làmb mel noonu ah. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy suivre euh, làmb simple bi nuyu waa Diofior nuyu waa Joal ndax mhm. ñaari xale yooyu foofu lañ dëkk. Mamadi nag moom euh, moom Doudou Sané actuellement jël nañ làmb du xibaaru kenn ndax lu ñu jële jële dañ ci yàgg ndeysaan surtout Doudou Sané mi nga xam xale la bu tuuti boo xam ne moom tamit defe naa ne at yi moom gis nañ ne li simple bi mu ngi ci wane boppam bu baax a baax a baax a baax mhm. Mhm. kon Babacar su ko defee foofu la nder képp affaire yi daal di joxe dig daje insha allahu rabbi demee ci kàttanu yàlla di ñaan réew mi yàlla def jàmm di nuyu ñëpp di nuyu waa Equivox TV ñoom ñi nga xamante ni làmb ji xew ña nga fa euh, seeni direct baax a a dëgëral ci barke Seydina Mohamed. parce que loolu lenn la rek liggéey la ah. mhm. te liggéey moom li Serigne Saliou Mbacké doon wax mhm. lu liggéey jaamu yàlla aw ci defar aw ci yàq. Mhm. nit moom booy liggéey yàq liggéey a liggéey. rek ak lu ñu la mën a waxal yow nekkal ci saa yoo xëy del liggéey. del dégg su yàggee résultat dina feeñ xëy na loolu Equivox ah, ñu ngi ci lancé boobu ñu ngi ñaan yàlla affaire yi gën a macha allah gën a barkeel gën a yokku yàlla mën na ko yàlla na ko def di nuyu ñëpp ñi nga xam ne tamit ñu ngi wóolu Equivox di ànd ak ñoom parce que ki lay wóolu tamit ne la kaay liggéeyal kaay liggéey ak man kaay defal ma direct mm-hmm. kooku tamit mën a def lu dul rendre sant ko delloo ko njukkal mm-hmm. mais te di nuyu promoteur yëpp mais aussi tamit di wax kani rek Euh, suñu papa jooju nga xam dafa génn àddina te nekkoon ancien lutteur assurance Malick Diop mhm. dégg na dégg nga Youssou Ndour way ko ca way wu rëy ko mhm. moom génn àddina dem nekkoon ancien lutteur mhm. yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana di ko jaale képp koo xam ne askanu làmb nga di ko jaale famem di ko jaal tamit président Manga 2 ndax man wax dëgg yàlla am na benn tournée bu ñu doon def di seet mbër yi feebaroon mag ñi mbër yi feebaroon kera taaloon na oto bokkoon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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk